waaw marché bi day man sa sama gis-gis sama xalaat mooy euh, comme ñoom ñoo ne constitution bi maye na nit euh, ku am lu la naqari nga nga marche pour wane sa sa sa mécontentement loolu man sama gis-gis jàpp naa ne dara nekku si parce que euh, lu tax seen droit la ndax ku nekk war war nga am gis lu la naqari nga ne lii ak lii moom ma métti bu ko defé nga wax ak euh, autorité yi nga xamanteni ni ñoy ñom la fi yalla tek ñu jital leen ñu man ci jëm ut ay safara du deug kon lool gis na né dal ben jafe-jafe waru ci am dal té ñom sax li leen gëna nopp man ci ma gis-gis moy buñ encadré won buñ leen encadré won ñu def seen marché si jamu, ngon jot ñu ñibi ku nekk ñibi kërëm mo gën ñu leen di jëm bundu bund di leen andi ay jafe-jafe quoi ci sama gis-gis man waaw parce que ñom seen droit la buñ fi nekké di leen ko jëma téré dañ nan ñun suñ droit la dañ koy def diko di bëgg forcer ak yoyu xam nga te su boobaa ñoom ñoo nekk seen dëgg parce que ñoom ñoo ko bind si constitution constitution bi ne lii ku am lu la naqari am nga droit def ko mais ñëw itam ñoom ñii marché nañ yem ci marché buñ paree ñuy dem ñibbi seen kër quoi du dëgg wax lu leen naqari après jeex na mooy loolu. waaw mais buñ fi nekk di leen jéem a tere ak yooyu noonu loolu après euh, désordonnement rek lay indi te loolu amul benn amul benn njëriñ nañ leen nañ leen encadré ñu marché bu marché bi jeexee ku ne ñu wax li leen métti. buñ paré ku nak ñibi sa kër mu jeex. waaw euh, match bi amna solo ci kaw en tant que citoyen am nga droit gis lu le metti ci sa rew nga taxaw manifester ko mais man mi di wax yow andu mak Macky Sall voté lu ma premier voter lu ma deuxième musuma ko fal ñiko fal man bokuma ci ñiko koy réccu tam man bokuma ci parce que musuma ko musuma ko fal man Abdoulaye Wade laay voté tey ba suba ba ginaaw suba fumu and fala and bu ko gisul japp ci keneen. non non non non bañu ma ko. dama andul ak mom waaw la taxone ànduma ak mom bimu toge lolou la gis tout court te mom la doon diggal ñeneen ak ñeneen ñepp man man man ñi daan waxal bu ñu ma doon déglu kon mak sal du tok ci rew bi mais nak dogal suñu borom aussi ke mënu ci dara. marché bi and na ci ci ben côté ci euh, comme li wala sank en tant que citoyen bo gisé lu metti ci sa bir rew am nga droit taxaw revendiquer. waaw nguur gi loolu moom moom moom ñi umpul kenn parce que chaque jour nga dégg ñuy nit ñi di jàmbat li leen yi mais ñi nekk ci gouvernement bi xaw ma ñoom lan mooy seen problème ñoom dafa mel ni faj jàngoroy askan yi du moom moo tax ñu teg leen fii ñoom nit ñi dañ naan dañuy taxaw di wax seen di ñaxtu seen i jafe mais daal dafa mel ni dañ leen di tànqamlu xaw ma nu mu demee noonu waaye fii lépp la ñuy yokku yaa ngi dégg. Macky Sall ci moom ak nguuram nañu xoolaat bu baax li ñuy def parce que ñoom dañ leen fal pour ñuy dimbale askan wi mais falu ñu leen pour ñuy dund si kaw askan wi nañ ñu dimbale li laay war a sóol yi ñu maanaam ñu taxaw jàppale askan yi taxaw si seen bëgg-bëgg di leen di leen di leen ko saafaraal parce que looloo tax ñu teg leen fi waaw. ànd naa ak ñoom ci kaw li ñuy revendiquer ànd naa ci mais nag tamit ñoom yoruñu sama kër ñoom waa mouvement waa ma ñoo lànk Macky Sall yorul sama kër. suma xeye mom pied la route rek sama liggéey bop la yor di liggéey di yobu sama keur kenn nak jaralu ma ci dem di sanni ji xeer wala ngay dorante dedet en tout cas li waji don wax nan sangoruma laminuma mangi ci bamba ba sanni jot ma sanni kima neex delu ci bamba man non lay doxé daw meeting sànniwu ma xeer dugg ci ay auto ba sanni jot ma jël sama carte bi dem sanni kama neex neex delu wat ci bamba mo oké non mouvement ñoo lank ñom man ci li ñu nekk ci laa gis nga Guy Marius Sagna nekk si biir kaso gi nii tey jii Sénégal ñëpp waroon a ñëw jàppale ko si xeex bi mu nekk nii parce que lu tax moom xeexalul boppam moom askan bi lay xeexal kon nit ñi dañu war a jóg ñoom itam ñëw ñëw ñëw ñëw dimbale ko ci affaire bi jàppale ko parce que li mu nekk ci ci droit am la nekk ndax mënuñu euh, bëgg a jël lu nekk fii ci réew mi ñu ne dañ koy yokku te teguñu ko ci dëgg teguñu ko ci yoon loolu mënul nekk ñoom bu ñu amee problème mu nañ ko lijjanti feneen mais bu ñu ko sëf askan wi du dëgg waaw ñoom ñoo xam nu ñuy def ba campagne baa ngi nii passé dañ doon dépensé ay millions yu jeex bu ñu demee ba léegi yortuñ dara nag ñu bëgg a jël yokku facture yi yu kenn xamul ñu bëgg ko yokku di ko sëf askan yi lool loolu morul dëgg du yoon nañ xoolaat lu ñuy def moomuñu nit ñi dañ leen fi teg pour ñu liggéeyal askan yi yaa ngi dégg waaw man loolu la amul lu ma ciy wax quoi wasalaam waaw ok merci beaucoup. waay borom borom kër laa yor naa soxna yor ay doom. mais nag dama lay delloo si lenn aussi gis nga li sëñ Fall doon wax ne ñun dinañ joxe te dinañ laaj weccet moom rek moo fi nekk si nga réew mii kenn mënuñoo toroxal ku ñu bëgg toroxal yaay torox yow day métti rek mais dañuy dund dund dañ koy def parce que yàlla moo ñu wàcce fii Macky Sall wàcce wuñu fii nguuram wàcce wuñu fii ay ay ministre am wàcce fii ñu àndal wàcce fii yàlla moo ñu wàcce fii te gémmeñ bu mu xaar dina ci def incha allahu rabbi ñoom nag ñoom ah nañ dëkk nit ñu dëkkee rek waaw ba ëllëg